mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw a yéen ci mbiri promoteur bi di Luc Nicolaï te bokk ci détenu njiitu réew mi Macky Sall gracié ci feetu tabaski ki nu génn Serigne Fallou Nicolaï ñu gën ko xam ci turu Luc Nicolaï bu moytuwut dina delluwaat foofee ca prison ay fan rek ginnaaw bi nga xamante ni gracié nañ ko loolee nag la ko waral moo di ab contrainte par corps moo ngi koy xaar ndax kat dafa war a fay lu toll ci trois cent millions ki nga xamante ni moo di directeur bu hôtel bu Lamantin Beach di wuyoo ci turu Bertrand Toli mi nga xamante ni constitué wu na partie civile ci dossier bile promoteuru làmb bi nag jotoon nañ ko tëj ñetti ati kaso yoo xamante ni yëpp la waroon a tëdd teg ci amande trois cent millions boo xamante ni waroon na ko fay waaye nag ci feetu tabaski gi lañ ko daal di gracier mu daal di njibbi ca këram waaye nag lii ñu ci soow mi moo di bu ñu sukkandiku ci koo xamante ni jege na loolu directeur hôtel bu Lamantin Beach bi promoteur bi di Luc Nicolaï kenn waru ko woon a gracier ndax kat éligible ci ab grâce la ndax kat Luc Nicolaï xaalis bi mu war a jox joxu leen ko bu ñu sukkandikoo ci waa ji ba tey nag lu toll ci ñeenti at a ngi nii awokaay promoteur bi di dugal ay recours ngir bañ a fay xaalis bi nga xamante ni amaan nañ ko seen client bi bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur moom waa ji nag lam xamle moo di kii di Luc Nicolaï fas ne wuta fay xaalis boobee ba tax nag ñoom ñu nar a daal di utiliser li nga xamante ni moo di contrainte par corps maanaam fay rek wala demaat kaso ci fàttali nag lu ni mel ki nga xamante ni mbirum escroquerie boo xamante ni doxoon na ci diggante Imam Sall ak waaraatekat bi ci ab or boo xamante ni valeur biñ ko estimé tolloon na ci cent soixante millions waaye nag waaraatekat bi di Taïf Socé la ko mayoon sens moo di mbokki waaraatekattam yi nga xamante ni ñu ngi ci milieu bi ku ci mel ni Iran Ndaw dañoo organiser woon ab téléthon maanaam dajale woon lu toll ci cent millions de francs fa ngir daal di koy fayale Taïf Socé ngir mu baña a delluwaat foofee ca prison ndax promoteur bi ko defal téléthon wala déet li ci kanam rawuli bët fii la ñuy yem ak yéen dinañ leen toppalaat dossier yi indil leen ci ay yeneen leeral jërë ngeen jëf